hôpital bi di bul Matlaboul ni bi Touba ndax day am docteur buy fas yéene saafara jàngoroom li lii di ab tontu boo xam ne nii mi ngi jógee ci ki nga xam nañ fa fal yees di docteur Makhtar Lo hôpital bi daayira Matlaboul Fawzeyni tàmbali woon liggéey bi ci ñaari fan ci weerub mars atum 1994 ñu inauguré ko ñaar fukki fan ak juróom ci weerub mars ci atum 2005 ci njiitu Serigne Saliou Mbacké ak ki nga xam fi nekkoon njiitu réew mi di président Abdoulaye Wade hôpital bi lii ab diir a ngi nii mel ni daa am jàngoro ju ko dugg te ba nëgë ni saafara mën a gu cee am docteur Makhtar tàmbali ci jàngoro yooyu la yan la. bi ñu ñëwee am na ay yenn jafe-jafe yoo xam ne bii fekk nañ ko fi ci biir hôpital bi ci wàllu doxalin lu mel ni wàllu cet gi booy xool assainissement dafay nekk jafe-jafe ndaxte fii euh, euh, hôpital bi dafa ndaw service yi bëri macha allah ba aussi li fiy fréquenté xaw a bëri ba tax na léegi booy xool daanaka ndox bi nga xam ne mooy ndox mi dem ci foos yi day nekk ay jafe-jafe ci biir hôpital bi pour mu foos bi day gaaw a fees bis bu nekk daanaka dañuy indi ñeenti camion yu ñëw di vider. pour mu bañ a génn ci biti di mën a bañ a bal te loolu tam xaalis bu bëri lay laaj loolu problème boo xam ne ci hôpital bi la gis nañ tam maanaam saal yi dafa ndaw xëy na ñoom seen yéene mooy euh, ñëpp mën a faju waaye sax seen kàttan tam foofu la toll ba tax na léegi lii ñëw ci hôpital bi dafa méngoowul ak li nga xam ni moom lañu ñu am ci wàllu ay saal bi dem noonu boo demee tey service urgence daanaka saa su ne day fees te am na fanweeri lal ak ñaar yu fa nekk yoo xam ne bii loolu moo tax mu jóg boo demee tey maternité am daanaka saa su ne day fees parce que ñi fiy ñëw ñu leen di indi fii ci ay ambulance yooyu day nekk lim xam ne bu doon te ñun bëgguñoo ñu ñu nit ñu naan koy delloo ndax amatuñu place. ba ñu ko falee ci hôpital Matlaboul Fawzeyni boobaak léegi juróom-ñaari weer la li nga xam ne jot na ko fay def ci ay jéegoy liggéey moom mi fi nekkoon njiitu hôpital bu Ahmad Sakhir Lo bu luga di fësal ne ay jéego la yoo xam ne yu ñu xeeb la ndax li nekk seen kanam moo ëpp doole fuuf. biñ ko seetee ba gësu ko waxtaan ci ak ñi nga xam ne ñoo lañ ko seqal am na ay jéego yu ñu ci def jéego yi mooy fexe ba euh, ci wàllu cet ñu def ay euh, aménagé def ay peinture def ay carrelage bu ngeen xoolee ci biir di ngeen gis ni am na ay couloir yoo xam ne tam lañu ko defaat jëlaat karo yi di ko defaraat defaraat peinture bi defaraat espace vert yi ak fleurs yi su ko defee au moins ci wàllu cet mu gën a mën a nekk loo xam ne lu gën a euh, nit ñi duñ ko ragal maanaam nañ gën a am envie pour mën a ñëw di faju ci biir hôpital bi fexe nañ tam ba Euh, ci wàllu maternité salle bi opéré jigéen ñi césarienne ñu def benn salle boo xam ne bi moom dong loolu dong lañ lay liggéey am na ay appareils yoo xam ne bi réparé nañ ko fi euh, lu mel ne ay appareil d'échographie wala ay appareils yoo xam ne ci bloc opératoire bi lay wala appareils yu nekk ci euh, laboratoire analyse bi am na aussi ay appareils yu ñu fexe ba am ko fi mel ne ay ECG yi rajo xol ak yeneen appareils ay échographie cardiaque parce que loolu tam dafay xawoon tumuranke ba tax na da yeex maanaam pour nga def écho cardiaque wala yooyu da ngay toog lu yàgg loolu tam ay ñuy def la ay joyante yi ñu def yoo xam ne bi dina tax ba liggéey bi gën a mën a jaar yoon ci wàllu garab yi ak wàllu aussi euh, jumtukaay yi médecins yi di utiliser pour mën a faj fexe nañ ba yokk aussi euh, maanaam lim bi. jamono ji réewum Sénégal di waajal xew-xew bu mag di fukki fan ak juróom-ñett ci weerub safar jëm ci màggalu Tuubaa wàllum wér yaram am ci pàcc bu am am solo. moom njiitul hôpital bu niveau 3 bi di fësal ne war a jëm ci wàllu wér-gi-yaram fii ci dëkk bu sell bi di Touba fagaru nañu ko ngir mën faa accueillir ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yittewoo dañoo jëm ci bis bu mag boo xam ne bii mooy màggal bu mag gi te bis boobu euh, wàllu wér-gi-yaram nekk ci lu am solo ndaxte lu ci waay di def te amoo wér-gi-yaram rek boo defu nank ni nga ko bëgg a defee boo ko mën defe noonu ba tax na tam euh, ñu am wàllu wu rëy wu ñu war a euh, waar wu rëy wu ñu ci war a bay ci wàllu wér yaram jëmale ko ci ci màggal bi ci am ndaje moom doon def ak taskatu xibaar yi moom directeur bu hôpitalu Matlaboul Fawzeyni man ki dalal xel yi waaye itam du yokk yaakaar yi bu baax a baax ci li jëm ci hôpital niveau 3 bi lee nga xam ne ni ñaari service yi fa ëpp doolee bokk na ci la jëm ci wàllum urgence ak li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu maternité ci ab xayma lépp ñeenti junniy soxna daañu fa muccee at mu nekk